94 Walf Sénégal dellu si na di leen siyaar di siyaare mboolem kuy toppal 94 Walf euh, Sénégal seen analyse chronique yoo xam dañ leen koy defar saa su nekk ci réew mi ak bitim rew ñu ngi leen di jaajëfal te di leen siyaar di siyaare mboolem képp koo xam yaa ngi topp suñu site bii ah waa diaspora bi mbir yaa ngi bëgg neex de oto yi nag dañoo war a wàññeeku de bu ko defee ngeen indi oto yi dugal ko biir Sénégal voilà ndax sénégalais yi yaakaar naa ne jeunes yeeg ñëpp war am oto. wala développement la ñu wax wala jombul kenn oto jombul kenn mbir mi bu jaaree fi mu war a jaar rek ñëpp dinañ am oto wala oto daanaka mën naa ne fii rek la seer ci Afrique waaw dañ ko seeral li tax loolu mooy dirigeant yi fi nekk rek bëgg a aakimoo li fi nekk voilà waaye oto moom wax dëgg yàlla warul seer surtout nag ñi nga xam ñu ngi ci diaspora bi nga xam ne maanaam lu ñu am foofu noonu am oto da gis koo xam dafay tukki bu demee ci réewu développement yooyu noonu bu demee day am oto xëyee ko wàcce voilà noonu ñu ko amee yaakaar naa ne ñun noonu lañ ko mën a amee ndax ñooñu ay nit lañ ñu nit ay nit lañ waaye da gis fii ñu naan la wala yoonu ndaw du gaaw ak voilà gone du gaaw a am otoog gone du gaaw am kër ak maanaam yooyu ay ay aada la yoo xam ne ni voilà daanaka yaa ma gën a xam ñu ngi ci vingt et unième siècle voilà xale yi léegi xaaratun voilà mënatunoo xaar voilà parce que dafa jot voilà parce que réew mi am na lépp ay dirigeants yu jub lañ doon ñaan am nañ ko Ousmane Sonko ak Diomaye ngoog ñëw nañ waaye oto yi nag daa war a yomb kenn ku ci nekk nag am oto ah kay pourquoi pas lu mën a nekk la xam nga fii loo wax rek ñu ne mënta ne ah kay lépp a mën a ne. voilà fii lañ doon wax naan tubaab yi mënuñoo tàqali koog ñoom tubaab yi waaye gis nga ko tey tubaab yaa ngi nii commencé di yàppar yàppari di ñëw parce que ay dirigeants yu am ful la jub boo ko amee tubaab yi ñoo lay neexal waaye dootoo neexal tubaab yi. wala li ci des nag mooy oto yi moom wax dëgg yàlla war naa voilà war naa wàcc bu baax a baax a baax ci réew mi nañ leen bàyyi rek nañ leen yombalal tamit wax dëgg yàlla dugg si bi voilà boo xoolee muudu muur yi daan indi oto boo gisee inditul oto mooy daanaka frontières yi dafay jafe bu dee côté Maroc bi amul problème Maroc moom amul problème mais boo si dugg si Mauritanie ba keroog ngay ñëw ci sunu frontière Sénégal Rosso bi foofu mooy problème ba nag voilà daanaka man naan li nga jënde woon oto boo ñëwee ba foofa noonu la nga war a fay lépp daanaka prix prix oto ba lay doon maanaam da ngay dem ba maanaam dangay ngay décoration ci oto bi ni man bu démb doon tey ma jaare oto bi ci yoonu suuf ndax foofu lan la fiy teg ci ay taxi xanaa loolu war naa jeex côté boobu noonu moom war ngeen ko war war ngeen cee dimbali bu baax a baax baax a baax immigration yi nekk bitim réew parce que dañuy bëgg a ñibbisi indaale oto euh, def ci seen i bagage bu nu ñëwee seen bagage yooyu mooy serite bi kër gi waaye oto bi nag bu ñëwee moom la ñuy dawal ci dëkk bi bu ñuy dell nag jaay ko man cee rek régler seen i euh, problème voilà loolu nag gis nañ ne moom wàlla wax dëgg yàlla daf fee gëj voilà dem nañ ba maanaam nit ñi kenn indeetul oto parce que wax dëgg yàlla nungootul woon yenn oto yi dugg seeg yooyu te oto yooyu noonu baaxoon na trop ci réew mi voilà bu ñu mënee am ay oto yu bees tamit moo yi gën waaye développement daal la ñu wax lépp daa war a yomb sénégalais yi maanaam li leen jafewoon yépp da leen war a yomb wax dëgg yàlla ndax kat euh, ñu ngi koy xaar ci yéen ñii yéen ñi nga xam ne wax dëgg yàlla yéen a nekk ci état bi te lépp nag ñu jaarale ko ci lu jub voilà mbir mi moom yaakaar naa ne bu fépp jubee rek wax dëgg yàlla daanaka mën naa mbir mi dina yomb lool kan 94 Walf Sénégal daal lii la leen indiloon